lii nga xam ne moo nekk ci àdduna si la jaaxal ñëpp suñu borom génne ko fi ci génnin wu woo xam ne dafay jeex tàkk loolu mën na ko te am na kattanam te te sañ na ko ginnaaw loolu itam ñu ñaan suñu borom moom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak man te mooy borom sañ-sañ Cheikh mun Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkat Serigne tubaa te léppam te itam jëpp di doomu aadama yi ak lislaam suñ borom gën koo dëgëral gën koo jàppale ba li nga xam ne mooy iteem ak yéeneem mën koo def ci doomu aadama yi mën koo def ci lislaam ni nga ko bëggee te daje te daje ci ngërëm suñ borom tañ ànd kook moom ginnaaw loolu nag ñu ngi waxtaane woon ajjuma ji weesu ite ji nga xam ne lislaam jox na ko jullit ñi ngir li nga xam ne moom war a deq seen diggante ñu mën koo ni ñu ko war a séqe man cee dox ni nga xam ne lañ ci war a doxee li ñuy waxtaane mooy lislaam ba mu daataan def loolu nga xam ne mooy li war a seq jullit ñi liñ li ñu war a seq te war di ko yëg te war di ko dund loolu bi mu ko daataan def dafa am loo xam ne moom la tàmbalee lim tàmbalee mooy li nga xam ne xam nañ ne bu nee jullit ñi ab société la doon kon nag société li nga xam ne moo koy amal loolee li njëkk a jox ittee nag soog a ñëw ci société bi ci boppam loola mooy ñe dafa lislaam dafa dafa dafa am loo xam ne dañu koo sant moo di ne ñaar ñi nga xam ne ci la société di tàmbalee muy famille muy muy soxna ak borom kër kenn ku ci nekk dafa am ay ndigal yoo xam ne lislaam dana koo jox loolee nag la ci jublu ngir bëgg bu ëllëgee bu société bi taxawee taxaw ci taxawin wi nga xam ne ci la war a taxaw nekk ci nekk nekkin wi nga xam ne moom la war a nekk loola mooy dafa dafa digal ki nga xam ne mooy borom kër ak ki nga xam ne mooy soxna ñoom ñaar ñëpp kañ yi àndal nañ ko seet ba xam mooy kan nañ xool nam ndax kuñ war a àndal la war a kuñ wërta àndal nañ xool ndax melokaan yi nga xam ne mooy tax ñu war a ànd ak moom mi ngi ci moom wala nekkul ci moom bu ko defee nag ñu soog a ànd ak moom ci àndin wu rafet àndin woowee nag li li ñu ko woon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne taxayyaroo li nutafikum mooy képp ku ngeen bëgg a jaxasoon moo xam góor la góor gi bëgg a jaxasoo góor bëgg jaxasoo soxna wala soxna si moo bëgg a jaxasoo ak ak borom kër ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci bala ngaa jël engagement ci li nga bëgg a ci àndin wi nga xam ne moom ngeen war a àndal na nga xool ki ngay àndal ki mooy kan ak menn man ak wan melokaan moo nekk ci moom ak ak yan mu yan jikko moo nekk ci moom nga soog a jël engagement ci moom waaye la ca gën a yéeme mooy suñ borom bi nga xamee ne tànn loo nañu ka ñuy dugg lam ca lam ca tegaat ci aw yiw ci buñ bu am bu ànd nga amee muy yiw yu rëy rëy yoo xam ne da koo da koo da koo garanteel ki nga xam ne mooy soxna si garanté garanté ko garanteel ko ki nga xam ne itam mooy borom kër gi moo di ne bu lim ci njëkk lim njëkk a def mooy dafa wax ne seen doom yooyu nga xam ne moo moo war a am ci ànd boobu bu ngeen leen yàlla bu leen ko yàlla joxee li ngeen ciy dëkk jëkk def mooy na leen tànnal ay tur yu rafet waaye yemut ci loolu dafa wax ne itam ne doom yooyee nga xam ne moom laa leen di xéewale bu bu bu ngeen ko bu ngeen ko jaaralee fi mu war a jaar seen day tekki ne seen seen seen i jëf du dagg du dagg ba mukk fu ngeen di war fa ngeen leen di war a jaarale nag mooy nangeen leen jaarale ci yar bu rafet ba nga xam ne loola la ñuy xam loola la ñuy ci seen adduna bu ko defee nag loolu kon defee mel ni yéen bu ngeen fi jógee itam te xam nañ ne kenn ku ci ne ne kenn ku ci nun kenn ku ne ci nun da nga fi jóge bis bis boobee ba nga xam boo jógee nag te bàyyi fi njaboot goo xam ne mel nañ nañ war a mel di jaar fa ñu war a jaar lépp lu def ci lu baax day dellusiwaat ci yow loola nag mooy li nga xam ne suñ borom def na ko ngir won noo xawat nu ne jox na itte lool li nga xam ne mooy mooy famille yi ndax bu fekkee ne yow mi koy sa yow mi nga xam ne yaa koy sos dalaay garantil ne bu fekkee ne fexe nga ba ñu ba la cay la la nga ca amee mu jaar fa mu war a jaar xamal ne yow ba àddunay tukki sa jëf du jeex loola nag yaakaar naa jullit bu ne war na koo jox itte war na ko bàyyi xel ndax ku sañoon ku ne boo fi jógee itam sa jëf sa jëf ju baax di gën di gën di continuer ndax moom lañu Sëriñ Tuubaa waxoon ci xamal ne ne ne ji nga xam ne ji ñoo ñoo ñoo fi jóge li nga xam ne moo gën a doon si itte seen itte ji gën a rëy mooy ñu yàlla dégleesu woon leen ci àdduna si doon te benn waxtu la wala benn saa ngir rek ñu mën cee jëf dara loo xam ne buñ delloo danañ ko mën a jariñoo loola nag bu fekkee ne yàlla moom moo la waajal loo xam ne sa jëf mën na ci continuer waxtu wu nekk kon yaakaar naa war nga koo jox itti bàyyi ko xel ba li nga xam ne moom nga ci war a def nga def ko ca waaye li ci gën a yéeme itam mooy moom doom jooju nga xam ni moom la moo sosu ci sëy bi nga xam ne ñaar ñi ko ànd sa tànn seet nañ li ñu war a ànd ba ànd ci noona doom joojee bu ko yàlla dundalee mu jaar ni mu war a jaar sa jëf du fi jóge bu yàlla dogalee mu teel fee jóge itam suñ borom mu la del bu ñuy bu ñuy jullee xale boobee duñ ko wax ne yàlla na ko yàlla yërëm wala yàlla waaye dañuy wax ne yàlla nañ ko def ci ci ci yiw yi waay juróom ay waay juróom kon mu mel ni ba tey loolu jëf ju maanaam aw yiwu rëy la woo xam ne yàlla moo mi ngi ko fa mi ngi ko mi ngi ko préparé ki nga xam ne ànd nañ ñi nga xam ne ànd nañ ci àndin wañ war a ànde di amul ci loolu itam mu mu tegaat ca ne képp koo xam ne yàlla jox na la ay doom yu jigéen te xam nañ ne doom doomu aadama li muy gën a xool mooy ku koy jàppale ak ku koy dimbale te xay na ci gis suñu giseen suñ doom yu jigéen jàpp mën nañoo jàpp ne xay ni ñu war a taxawee ci ñun ak ni ñu war a jàppalee mën naa bañ a demee ni ñu defaree ni ni mu war a demee waaye nag loolu wër sa tax ñu war a sàggan ci ñoom wër sa tax itam ñu ñàkk ñàkk a ak ñoom ni nga xam ne ni lay do ni la ñuy doxee ak góor ñi nga xam ne moom lañu am moo tax nag lislaam dafa dël ki nga xam ne dafa dig ki nga xam ne yàlla da koo jox ay doom jigéen mu yar leen yar bu rafet jaara leen fi mu leen war a jaarale kooka suñ borom da koo dal ne ko àjjana bu ëllëgee dinaa ko jox ba tey loolu kon doon loo xam ne aw yiw rëy la woo xam ne mi ngi jógee ci fondation fondation famille beneen bi ci tegawaat mooy ñaa yàlla dafa dafa yemut ci ne yow waajur wi rek na ngay sonn ci ki nga xam ne moom nga am waaye ki nga am itam suñ borom da koo digal moom itam nay sonn ci yow muy woy doom yi suñ borom dañu ne digal nañuy sonn ci seen i waajur di topp seen digal di def di leen ñeewant di leen ñaanal di di di di taxawee seeni i mbir itam ci taxawee yi nga xam ne moo war saa yu demee ba tële li nga xam ne moom lañ mënutoon mën mu lañ mënut lépp te yow ba nga ko mënutoon ñoo la ko mënaloon yow itam na nga fexe ba taxawee ci loola. benn benn itam moo di ne ci bëgg li nga xam ne mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ taxawoon ci yow nga di ko taxawee rek képp ci ci moom bu fi jógee mu jeex waaye day bëgg bu fi jógee itam ña nga xam ne ñoom la amoon te doonoon tañ doonoon ay xaritam doonoon ay mbokkam doonoon ay am di jàmmam yow mii boo fi desee itam di di doom ji na nga taxawee taxawaay bu rafet ci ñooñee nga xam ne ñoom la sa waajur amoon di ay xarit di ay mbokk di ay di ay soppe na nga ca taxaw taxawaay bu rafet loola nag li li ci lislaam jublu mooy dafa bëgg société maanaam famille mi nga xam ne mooy taxaw mooy taxaw mooy taxawal société su famille boobu na taxaw ci taxawin wu rafet taxaw ci taxawin wu dëgër bu ko defee moom nag mooy dimbale société bi bu amee ëllëgee moom it moom it mu taxaw ci taxawin wu rafet taxaw ci taxawin woo xam ne taxawin wu am kattan la loolu nag moo tax ba jamono jii nga xam ne moom lañ toll te li ci ëpp mooy di ne famille maanaam maanaam famille yi am na loo xam ne lu bari lu leen di dàqale te li ci ëpp lépp mooy égoïste rek moo mooy tàqale ñeneen ñi ci des tàqale googee nag loolu dana war a tax kon ñu dellu siwaat di jàngaat lislaam njàngin wi nga xam ne njàngalin wi nga xam ne moom la ñu woon ngir xam ne bu buñ bëggee taxawal ab famille ci nii nañ ko war a bu buñ ko taxawalee ci noona rek bu société bi amee itam dana taxaw ci ni mu war a taxawee su famille bi itam dana dund ci dundin wi nga xam ne moom lañ war a dund loolu nag du mën mënta am ci lu dul ne yow mi nga xam ne yaa dem ngir bëgg a taxawal famille yi moo xam góor gi la moo xam jigéen gi na nga am yéene ju rafet ci ne li ma li ma li ma bëgg daal mooy danaa tànn koo xam ne dinaa gis ne yëg-yëgu xam responsabilité am ak mën a taxawee ak taxawaayu taxawaayu responsabilité mi ngi ci moom kooku laay tànn soog a mën a taxawal li nga xam ne moom la bëgg a taxawal loola nag li ñu ko woon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xamal ne jigéen day danañ ko da danañ ko takk ngir ñeenti yëf yi benn dañoo xool ab taaram ba takk ko wala dañoo xool alal jëm am ba takk ko wala ñu takk xool askan wa mu ba mu bokk ba tax ñu takk ko waaye mën nañ ko xool itam la tax ñu takk ko mooy diineem mu ne nag li ëpp solo kon booy takk na nga seet koo xam ne ku am diine la ndax la leen di boole pas-pas lay doon te pas-pas kenn ku ne yaakaar naa ne bu nekkee ci yow danga nga ko dund ni ko war a dundi da ko doxe ni nga ko war a doxee loolu nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ñu demee bay takk itam nañ góorgóorlu ba kañuy takk na doon koo xam ne diinim ma ngay sàmmonteeg moom moom kéem lay kattanam ndax loolu kat mooy tax ñu mën a taxawal famille ti famille bi am sole loolu mooy mën a taxaw itam famille boobee wala famille yooyu société mën cee juddoo juddu juddu boo xam ne dana yëg responsabilité am te l'islam day responsabilité société ak responsabilité famille aju ko ci kenn nit képp kenn ku nekk da ngaa war a yëg ni am nga ci responsabilité ndax da koo teg da teg ci pas-pas pas-pas nag ñëpp ko ñëpp koy war a dund moo xam doom ji la moo xam baay bi la moo xam soxna si la moo xam borom kër bi la kenn ku ne pas-pas bi da nga ko war a dund loola mooy tax lañ war a doxe ñu mën koo doxe loolu mooy tax itam ni ñu war a dunde ñu mën koo dunde te lislaam li gën a yéeme mooy bi nga xamee ne mi ngi taxawal ab ab société wala bi ngi taxawal am mbooloo mu ànd war a bokk lam leen lam leen boolee dafa wax ne ak mbokk uxu wala leen boolee yaakaar naa ku bokk ak nit dara nag fu mu mën a dem da nga ko fa fekk lu nu mu mën a toogee da nga mën a jéem a toogee ak moom noona la ngeen bokk tam da nga jéem a góorgóorlu ba jël ci sawal ni nga ko war a jëlee waaye tegu ko ci ak xaritoo wala ak ak ak bëggante wala yooyu kese waaye ci ak mbokkoo la ko teg loolu nag li ñu ko woon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne man de bu fekkoon ne daa tànn ab xarit kon kii doon sama xarit mooy Seydina Aboubacar waaye nag loolu sa sëñu ma ko ndax yàlla dañoo déglu na nañ doon ay mbokk rek kon nag mbokk googee mu mbo ànd ak dund ko ànd dund ko mooy tax li nga xam ne moom la ñu war a ni ñu war a nekkee ñu nekk ko loolu mooy tax itam ni ñu war a dunde ñu mën koo dunde loolu nag kon mu doon loo xam ne lu mat a bàyyi xel la xam ne lislaam i jox na it lool société waaye ba mu daataan jox itte société da koo jox famille mi nga xam ne mooy tax société am kon nañ lu ba li nga xam ne mooy tax ñu mën a am famille bu am bu tegee fi mu war a tege ba ba société bu mën a jaar fa mu war a jaar du dóo ca ñu góor lu ci yooyu ndax lislaam dafa bëgg waxtu wu nekk nañuy yëg li nga xam ne moom la ñuy bokk nañu yëg itam ne nii lañ ko bokkee nañ yëg itam nii lañ ci war a doxee kon loola pas-pas la boo xam ne yàlla moo la ko won ne nii laa ko bëggee doxee ci nii jàppee ko nii kon nag comme pas-pas la pas-pas yaakaar naa ne ku wax ne lii laa gëm war ngaa góor góorgóorlu ba loolee nga wax ne moom nga gëm nga nga cay doxe sa kemt lay kattan kon yàlla mi nga xam ne moo nu mën a jàppale moo nu mën a boppam yàlla nañu dimbaleel boppam sàmm taxawal nu boppam ba li nga xam ne moom la bëgg ci ñun ñu taxawal famille bu tegu fa mu war a tege ba société bu teg tege fa mu war a tege juddu ca yàlla nañu suñu borom dimbaleel boppam ba loolu ñaar yooyu nga xam ne mooy tax dund mën a dund mën a neex ci àdduna si mën a jaar fa war a jaar yàlla nañu suñu borom dimbaleel boppam ba loolee nekk ci ñun ñu di ko doxee di ko dundee loolu suñu borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañu ko defal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم إنا نسألك الجنة بلا عمل عملناه ونعوذ بك من النار بلا ذنب تركناه ونسألك بسترك الذي لا تسيله رياء ولا تخرجه رما أن تسترنا في الدارين وأن تحفظنا فيهما بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقديمه رضي الله عنه وأرضاه